waaw xam ñun suñu problème bi nii dafa doy waat d'ailleurs sax avant may commencer maa ngi ma masaw population bi ak ñoo xamante ne am nañu ay gaañu gaañu surtout ñoo xamante ne gaañ nañ ci quoi et honnêtement loolu baaxul ci réew réew yaakaar naa bu ñu fa nekkee jàmm la ñu te ñëpp ay ñaan jàmm te jàmm wax dëgg fa yàlla man dama jàpp ni ki ñuy gouverner notamment le président de la république jàmm bu amee moom la bu amulee nga xam ne ki si moom la jógee donc c'est important aussi moom bu fekkee décidé na jàmm dina am si réew mi dina am mais bu fekkee décidé wu loolu wax dëgg fa yàlla genre situation yi la ñuy dund gis nga lu xew démb ce qui s'est passé démb manifestation moo am da ngay gis gars yi di liggéey seen liggéey après communiqué génn aussitôt 30 minutes ñi ko en application ñi jàpp ay moto loolu fu ñu ko teg te la plupart du temps boo xoolee gars qui sont dans l'informel mooy ma mooy maanaam ñoo dañu dañuy débrouiller boo xoolee ñoom seen situation ñu ngi koy dund am na ñoo xamante ne jànguñu ñoom communiquer il va falloir ñi mu génn après gars yi leen démb am naa sama beneen xarit boo xamante ne moto cak-cak la yoon dafa amoon course di dox gars yi jàpp ko jàpp moto bi donc vous voyez ce que ça donc impact boobu noonu c'est pas seulement gars di dawal cak-cak pratiquement c'est tout le monde même gars di jaay ni da ngay gis si situation boobu lañ nekk saa psychose boo xamante ne na waar te véritablement état bi war na gëstu xool population bi quoi c'est pas pour des intérêts yoo xamante ne ñoom la mais c'est plutôt pour l'intérêt tout le monde quoi pour ñëpp la non man communication franchement du ma ko yëg moom dara laas bii sax yaa ko wax nii xam naa nag ak ñàkk jot bi duma am benn info damay dégg rek dégg nit ñi naan ay préfet nii préfet naa préfet mais moom yooyu moom ko du ma ko teel a yëg daal non du ko teel a yëg franchement franchement du ma ko teel a vide ma laa te li wala préfet moo def li rek mais moom du ma ko teel a yëg wax dëgg tey jii ñu fekk la si sa bërëbu liggéeykaay ngay defar ay lal ay armoire ak yu demee noonu souvent ñu gis ne commande yi day xaw a bëri mais bokk na si lu koy sooxee lu koy impacté lan lay sooxeel si seen liggéey xanaa xanaa xanaa métti te tardel suñuy liggéey rek vraiment lii moom xaw ma xaw ma kon mosu mën a dox pexe ba mu ba mu sotti si jàmm salaam mais lii moom temps yi moom métti na trop trop trop suñu côté duñu duñu xëy heure duñu wàcc heure yàq suñu liggéey gis nga dañuy liggéey ba mu neex booy xale yi ñëw ñu arrêté jël bagage yëpp dugal si biir bàyyi bañ dem ñu kon nawaat mais daal xaw ma daal luy luy pexe bi mais daal képp ku si mën dara moom booy boo nga jóg daal wax baa nga dox ko moom mais moom métti na suñu côté trop wax yàlla waaw man à chaque fois balaa may génn damay déglu xool information yi si réseaux sociaux bi du fekkee gis naa ni préfet wax na rek damay toog suñu kër du fekkee gis naa waxul rek damay mën a ah tey moom mën naa liggéey ndax man à chaque fois damay xool déglu lu information yi wax du ma déggee wax na lii rek ma appliquer loolu. dafay dafay faral di am parce que tey jii soo xoolee. man mii tey à chaque fois sax su may ñibbi sama kër damay am problème du du fekkee journée yu mel nii dafa am tey jii du may ñibbi damay am problème pour am oto des fois damay dox ba EMG dox ay lu mat un kilomètre du ma am oto tey tey des fois nga am rendez-vous ak benn client mu war a ñëw tey bureau neen wax ba tënk situation yi am moom day obligé toog seen kër parce que kenn nekkatul si sécurité loolu mooy waral lii daf ñuy indi handicap ci secteur yëpp la nag même maire bi jaay si table bi du mun a jaay gerte caaf ndax euh, day ragal ñu fekk ko foofu lacrymogène dal ko wala ñu xaañ ko xeer xam na loolu tamit dafay nekk loo xam ne musiba lay doon voilà. tey jii nan nga gisee taxawaayu ndaw yi ak ban message ban kàddu nga leen waaw li may wax ndaw yi rek Sénégal sunu Sénégal la ndax lu benn borom xam-xam di wax rek soo nekkee si dëkk wala nga yëg gaal da nga du fekkee da ngay dooy ñaan da ngay ñaan gaal gi mucc gaal gi su muccoo rek nga mucc te tey jii tey lu ma doon wax sànq rek si nasaraan ma ne lu rappeur boobu di wax Canabasse rek damay damay xaar ba bés ba ñot ma sànni suma carte. loolu mooy loolu laay wax bépp jeune ndax tey jii Sénégal sunu Sénégal la muy Macky Sall muy Ousmane Sonko tey ku fi nekk rek eh, du demee rek keneen mooy continuer te loolu la ñuy wax jeunes yi bu ñu yàq bu ñu gaspiller bu ñu sànni xeer nañ bàyyi ba bés bi jot ñu dem sànni ji seen carte ndax loolu mooy eh, avenir Sénégal